أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid ñuy tollu ci ñaar fukkeelu bunt bi te mooy baabu ma jaa an alguluwa fi quburi saalihin yusayiruha awsaanan tucbat min dunillah ba tey ñoo ngi ci buntu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngale di leeralal jullit yi ne leen ëppal ci bàmmeelu nit ñu baax ñi dafay mujj yóbbu nit def ko muy jaamu xërëm loolu moo tax al imaamu malik imaamu daaril hijri moom day bokkoon na ci ñi dégg waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu bañ bañ gu fés dem ak buuxante gi nit ñi daan buuxante ci bàmmeel yi lu ko waral moom Malik qad adraka taabi'un ndax moom dafa fekke taabi'in yi ñi fekke woon ñi fekke dund ñi àndoon ak yonent bi te wahum aalamu naas ñoo ñoo gëmoon xam nit ñi ak te diine yi ñoom ñoo gënoon xam nit ñi bi haadihi al mas'ala ci atte bii loolu moo tax ñoom ba ñu xamee loolu ñu taxaw ci bañ ko bañ gu mat sëkk mu ne fa dalla dalika ala annahu lam yakun maarufan indahum alfaazu ziyarati alqubur ziyarati alqabru nabi nee na loolu moo taxoon ñoom ci seen jamono comme mbir yi leeroon na ci ñoom ñoom xamoon nañ loolu tegtale ne ñoom tey ñun nii nu nekkee ñoom xamuñu woon loolu ñoom xamuñu woon sax di répété guddeeg bëccëg maa ngi ziyaare ji bàmmeelu yonent bi maa ngi ziyaare ji bàmmeelu yonent bi maa ngi ziyaare ji bàmmeelu yonent bi ñoom xamuñu ko woon ndax tey baat boobu maa ngi dem ci bàmmeelu place sàngam maa ngi ziyaare ji xabru sàngam li ci nit ñi namm dëgg dëgg dëgg mooy ziyaara bidaa te boobu lañ bañ boobu la diine tere mooy ziyaare goo xam ne xasdul mayiti li suaalihi da ngay jublu ji ku deeki di ko ñaan tey loolu mooy li nit ñi di dem koo dégg mu ne maa ngi dem ci bàmmeelu sàngam léeg-léeg sax nga dégg ku la ne man de sama aajo bi bi ma ko amee bi ma demee ci palaasu sàngam bi ma ko fa ñaanee dama am loolu mooy li musiba nag ab jullit du jóg di jublu ci bàmmeel pour di ko ñaan walla di fa ñaan aajoom walla ngay xemmem foofu sa aajo faju palaasu sàngam ku fa dem sa aajo faju loolu la ngeen dégg ngeen koy dégg guddeeg bëccëg bu fekkee ne jullit bi pas-pasam nii la bu yeboo mu xam ne pas-pasam wérul ndax ab jullit du jublu bàmmeel ci ay aajo ak ay ñaan ak di barkeelu ku am aajo tàllalal yàlla say loxo mi ngi lay dégg mi ngi lay gis wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa isa daan yàlla nee na man dama leen a jege ba ku ma woo ma wuyu la kon kuy ñaan ñaanal yàlla yeneen bi doon na jàngal saxaaba ba pas pas bu dëgër bu wér bu leer mu ne ko ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla wa ida staanta fastain billah booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci yàlla kon mbokk jullit yi nañu xam ne jublu bàmmeel di ko ñaan wala nga fay barkeelu wala nga xemmeem ci bàmmeel bi pour ñu faj sa aajo wa naxwu zalika mimma yafalhu kasiru min annaas ak yeneen yu mel nii nga xam ne tey doomu aadama yi ñu ngi koy def yu baree bari sutti bu suufu bàmmeel raay barkeelu bu yeboo jullit yi xam ne loolu dara wéru ci loolu du diine amoo ci benn tiyaaba bàkkaar nga am ndax danga bokkaale sa borom ndax loolu bokkul ci li yonent bi tëral ne noonu la ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax sunu dars passé ngeen dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne istadda ghadabullahi ala qawmin ittaxasu qubura anbiyaihim masajid meru yàlla tar na ci kaw gaa yi nga xam ne dañoo jàpp seeni bàmmeelu yonent def ko muy ay jàkk mbokk jullit yi amma alfaz amma lafzu ziyaara fil umum al qubur bu fekkee jullit bi moom dafa namm rek dem ziyaara ji bàmmeel na yëg ne loolu luñ ko santoon la yonent bi dafa wax benn bis ne tere woon naa leen ziyaara ji bàmmeel yi waaye léegi dem leen ngeen ziyaara ji bàmmeel yi ndax mu fàttali leen dee jubluwaay bi mooy loolu saa yoo yëgee ne sa xol wow na yonent bi nee na bokk na ci li lay dimbali xol bi nooyaat dellusiwaat mooy jàng alquran ak ziyaare ji bàmmeel loolu lañu jublu ci soññ nit ñi pour ñu dem ziyaare ji bàmmeel boo ñëwee tëdd dugg ci bàmmeel yi nga tiim benn waay walla bi ngay dugg ci bàmmeel yi nga xool bàmmeel yi de li fi nekk ci nit bu fekkee yow da ngay jaay xam-xam di nga fa fekk ku la ëppale bu dee da ngay jaay alal di nga fa fekk bu dee ab ponkal nga woon di nga fa fekk ku la gën a ponkal bu dee da nga doon jaay taar di nga fa fekk bu dee da nga doon jaay askan di nga fa fekk dañoo fekk benn buur boo xam ne dafa gedd nguur gi mu dem dëkk ci armeel ya mu yàgg fa lool ba kenn xamatu ko ñeneen jël nañ nguur ga ba mu yàgg torop ba mu am ay at benn buur jóge beneen dëkk ñëw ci dëkk bi waa ji jiite woon di laaj waaw ne waaw ana buuru sàngam ñu ne ko hii kooku dee na bu yàgg ana njabootam ñu ne ko njabootam ñooñ de jeexoon nañ kenn rekk a ci desoon kenn mu leen anamu ñu ne ko mu ngi dëkk ci armeel yi mu ngi ci armeel yi anam ngi demal ci armeel li nga ko fekk buur bi daal di jéego jéego yu dëgër songu armeel yi seen waa ji mu toog ci biir bàmmeel yi mu ñëw ne ko waa yow yow yaay doomu buuru sàngam mu ne waa man la kay mu ne teeg maa topp ma dundalaat sa askan ma solalaat la ni ñuy solale buur ma tegaat la fi ñuy teg buur ma delloo la li nga jiite woon yow sax lan ngay def ci bàmmeel yi loolu mooy sama laaj sax balaa ma la yow yow looy def ci bàmmeel yi mu ne ko dama bëgg xàmmee yaxu buur yi ak yaxu baadoola yi moo tax ma ñëw dëkk fi at yépp ci loolu laa nekk may xool yaxu buur yi ak yaxu baadoola yi laa bëgg a xool mu ndax yaxu patron yi ak yaxu baadoola yi yaxu richaar yi ak yaxu faxiir yi yaxu borom xam-xam yi ak ñi xamul ñooñu laa bëgg a xool daal tollale ko ma xool buur bi ne ko waaw noo ko gisee mu ne ah man kay nu ma ko xàmmewut ndax yax yépp yem yépp funax kon bàmmeel yaa ngoog la waay di jaar rek jaay rek xaar ko foofu la waay di jaay ci àdduna xaar ko ci bàmmeel yi ku fa dugg rek yaxam fënëx moo tax yowmal xiyaam bu nit ñi dékki ki taxaw di yuuxu naan jóg leen danaan yéen yax yu fënëx yi kawar yu tasaaroo yi yàpp yi ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga tëddoon nga jóg mbokk yi kon ziyaare bàmmeel dafa am jubluwaay comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon fa zuuru alqubuur fa innaha tuzakkirukum al axira dem leen ngeen visite ji bàmmeel yi dem leen ngeen ziyaara ji bàmmeel yi visite lu tax mu ne fa innaha naka bàmmeel yooyu ñu ne ah ne tuzakkirukum bil axira da leen di fàttali alaxira ay armeel saa yoo fa duggee su fekkente ne ku gëm yàlla nga sa ngëm yàlla dana yokk su fekkee sa xol dafa wow dina nooy su fekkee da ngaa gëj a jooy say rongoñ dina tuuru ndax boo duggee ci ay armeel lu ne nga gis ko di nga gis ku ne waaw benn dof dafa ñëw ba ci armeel yi mu ne dag day wadi mu ne dag day wadi yow déggoo loolu loolu pël la mu ne dag day waɗi ñu ne ko ah mu ne ɗo noddinoɓe nan ɗo ɓe deƴƴi ɗo awluɓe nan ɗo deƴƴi ɗo huljintinoɓe nan ɗo deƴƴi ɗo nalankoɓe nan ɗo deƴƴi holko deƴƴini ɓe e pañoɓe jowani abbammele mu ne a amna amna lu xewde am na lu xew de gars yi ne ko lu xew mu ne noddukat yi ñu ngi fii tëdd noppi ak seen seeni làmmiñ yu rëy mën a yuuxu ne géwél yaa ngi fii ne pat mu ne ñi daan saraxolle ñu ngi fii ne pat mu ne woykat yi ñu ngi fii ne pat mu ne waaw mu ne ku noppiloo ñii kan ma leen noppiloo allahu akbar boo duggee ci bàmmeel yi nga dégg bàmmeel yi ne selaw loolu yàlla naan la tasmaw illa ndeysaan doo dégg dara yowmal xiyaam yàlla neen bu nit ñi dekkee doo dégg lu dul tànk tànk yi koros koros koros koros tànk loolu ngay dégg yowmal xiyaam doo dégg benn baat soo déggee rek lu yëngu mooy koros korosu tànk yi ñépp a ngi def tànku neen ñépp a ngi def yaramu neen kenn du sol yére la tax fa minkum xaafiya ñépp a ngi ne tullum doo dégg kenn wax ñépp a nga jiitu ñu ngi jëm ardul mahshara moo tax doomu aadama yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññ ñu pour ñu dem ci bàmmeel yi ndax bàmmeel yi dafa am lu muy jëriñ ci sunu dund mooy lan daf ñuy fàttali dee daf ñuy fàttali àllaaxira mbokk yi mu ne tey lii xew ci jamono buuxante ci bàmmeelu nit ñu baax ñi di fa sàkku barke ak ay ñaan ak ak ak ak nee na loolu lu bees ci diine la loolu lu ñu sos la ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi ak taabiin yi loolu amul woon loolu léegi la ko nit ñi sos loolu moo tax imaamu Malik bokk ci li mu bañ mooy buuxante ci ay bàmmeel mu ne ba tey dañuy jàng ci xadis bi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam lam yasta'iz illa bima yuxaafu wuquahu nee na yonent bi alayhi salatu salaam avertirul nit ñi waarul nit ñi yemalewu leen lu dul lu mu ragal fitna nekk ci lan la yonent bi ragal mooy buuxante gi ñuy buuxante ci bàmmeel yi lan la ñu nar a jural bokkaale yàlla génn ñu ci diine te tey loolu am day gis ñoo xam ne xamuñu dara ci seen diine di buuxante ci ay bàmmeel te ay armeel sax boo fay dem dañ laa jàngal nooy ziyaare jee bàmmeel yi dañ la ko jàngal alaysa kadalik ah jàngale ni ñuy ziyaare jee bàmmeel wala nga xëy rek dem dafa dem aadaabu ziyaarati xubur daam teggin bu ñuy ziyaarajee bàmmeel yi soo jàngul lool nag boo fa demee da ngay bokkaale boo jàngul lool ay armeel soo xamul nuñ nan lañ fay demee soo fay dem di bokkaale wala nga def fa bidaa maa nga def fa luñ fa bëggut a def wala nga def fa luñ la tere bu ñëwee ci beneen hadis bi beneen dars bi li ci tegu mu ne di ngeen gis ibnul jarir at-tabari ci càllale gu wér mu jële ci sufyaan mu jële ci mansuur mu jële ci mujahid aaya alquran bi nekk ci suratu najmi borom bi subhanahu wa taala naan afara aytum laata wal uzza mu nekk aaya 19 xanaa gisu leen xabar leen ma axbiruuna xabar leen ma wax leen ma yaa maashara alkuffaari ee yéen yéefiir yi an haadihi l aaliha ci seen yàlla yi laataak uza boroom xam-xam yi nee nañ ku mel ni ibnu abbas nee na kaana yaluttu lahumus sawiqa fa maata fa akafu an qabrihi ibnu abbas moom nee na kaana ya luttu sawiqa lil xaaji nee na nit ñu baax lañ woon ñaar ñooñu dañ daan jox ajkat yi ñuy naan kenn ki ne dañ daan jox ñi aj ñuy lekk nee na ba ñu deewee gaa yi daal di buuf ci seen bàmmeel yi di jaamu bàmmeel yi parce que ñooñu dañoo baaxoon ibnul jarir imaam la woon alxaafiz ku wattu woon alquran ak sunna la woon turam mooy muhammad ibnul jarir ibnu yazid altabari moom moo def tafsir quran boobu ñu naan tafsiru tabari waaw moom moo ko def borom tafsir la borom taarix la bind na ci tafsir na bind na téere taarix ibnu hasmin ibnu huzayma nee na laa aclamu ala wajhi l ardi aclamu min muhammad ibnu ljarir ibnu huzayma nee na bu ñuy seet ñi gën a xam ci kaw suuf mu ne gisuma ci ku ci gën a xam Muhammad ibnul Jarir at-Tabari wa kaana min al-mujtahidin ci ñi góorgóorlu la woon laa yuqalladu ahad daalu daawu roy kenn ku dul yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom doo nga ko doyoon kenn doyu ko am na tey ñu bare bari ci àddina bi ñuy xeeñcu ay mbindam ak la mu bàyyi woon ak di jéem a jaar ca yoon wa mu jaaroon te mooy mazhabam ñuy jël ay waxam di jëfee di bàyyi ay tereem moom Muhammad ibnul Jarir bi muy firi aaya bi mooy Laata ak Uzza dafa ne ay gaa yu baax lañu woon yu daan joxe lekk walla joxe naan bi ñu faatoo comme mbaax googu ñu baaxoon gars yi buuf seen bàmmeel yi di ko di leen jaamu ñu ne laata ak uzza ak manaata est-ce que am na benn kàttan benn mën-mën benn daraja boo xam ne borom bi subhanahu wa taala misal na ko ba gars yi yaakaar ne dañ leen war a jaamu qaala alxaasinu haadihi al asma kenn ci borom xam-xam yi nee na tur yii mooy Laata ak Uzza ak Manaat mu ne asnaamun ay tur la yoo xam ne ittaxazuha aliha dañ kaa jàpp def ko ay yàlla yaabudunaha ñu koy jaamu mu ne waaye tur yooyu wastaqu laha asmaun min asmaillahi ci tur yàlla yi lañ ko xottee daal di ko leen koy takkal ñoom ñooñu turu laata mu ne ñu ngi ko jëlee ci allah turu uzza mu ne ñu ngi ko jëlee ci aziz nee na laata moomu sax ab xërëm la woon ca taif mu ne Uzza ab xërëm la woon ci dëkk bu ñu naan Ghatfaan waaye kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tudd Xaalid ibnul Walid moo ko moxoñe moo ko daaneel moo ko toj nee na manaata nag sanamun li xazaata benn giir gu tudd xazaa bu nekkoon Makka ñoo ko daan jaamu moom xërëm boobu ñetti xërëm yooyu yàlla ngi leen di wax ci alquran waaye bu ñu toppee seen cosaan dañuy gis ne xërëm yooyu sabab bi yëpp mooy ay nit ñu baax lañu woon doon def lu baax di jaamu yàlla ñu faatu nit ñi def leen ay stati samp leen di leen fomp ak di leen raay ak di leen di leen di leen di leen di leen sama wetu daara fële ma nekk ca fiñ mi am na fa benn monument boo xam ne dañ cee def benn photo kilifa diine photo bi lañ fa def dañoo ñëw ba ci tali bi loolu bëri na léegi fu ñu ko def ci biir Dakar bu ñu tuddee benn xalifa diine benn rii tabax benn estati def ci ay fleur wékk ci fotoom pour nit ñi xam ne kii lañ tuddee riiw yi waaye man gis naa koo xam ne bu xëyee day jël ordre de javel ak omo raxas statue bi bale ko ba mu seet rose fleur yi parce que nee na sama sëriñ moo fi nekk loolu lu ñuy tere ci diine la jarul bu ñu tuddee nit ki tamit riib bi jarul jarul wékk photo jarul def estati parce que la muy jur mooy gis nga góor gi saa yu xëyee suba du xëy lu dul mu ra- mu mu mu sang ko te lii ma wax ku weddi suba xëyee boo xëyee demal nga taxaw foofu sa kër nga gis ko mu ñëw di sang xërëm bi ah yaa ngi koy gis jërëjëf kii nee na côté boobu la dëkk saa gi nee na mu ngi koy gis kon jërëjëf jërëjëf kon nag yooyu amul du diine danañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp te tey loolu dafa bëri ci biir réew mi ay nit ñoo xam ne ay xërëm rek la ñuy jaamu loolu baaxul mu ne ñëw na ci beneen riwaaya mu ne kaana yaluttu lahum assawiq fa maata fa akafu an qabrihi wa fi riwaya fa yut'imu man yamurru min annas fa lamma maata abaduhu wa qaalu huwa laata ñoo na ci ay riwaaya yu ne ñooñu waa jooju nit ku baax la woon ba mu faatoo gaa yi buuf ci bàmmeelam ñoo ci beneen riwaaya ñu ne fa yut'imu man yamurru min annaas da daan jox nit ñi romb ci gox bi mu nekk lekk falamma maata abaduhu bi waa jooju deewee ñu ñu jaamu ko gis nga jaamu yi yëpp nag li koy waral mooy nit ki dee ñu génne la ci biir jullit yi saa yu nit deewee ñu suul ko ci biir këram wala ñuy suul ko ci garab gi mu doon toog mbaa jàkka ji mu doon jullee wala benn barab bu wuuteeg fi ñu suul jullit yi rek wala yàlla dimbaliwul léegi foofu nekk xërëm wala yàlla dimbaliwul rek nit ñi daw di fa buuxante yi di ziyaareek di barkeeloog di tibb ci suuf saak di fa bind seeni tur ak di fa ñaan seeni aajo te loolu mooy jur xërëm moo tax jullit yi war koo moytandiku te tey loolu daa bëri daanaka tey dëkk boo dugg ci réew mi kilifa diine ga fa nekkoon bi mu faatoo ca jàkka ji lañ ko suul wala ca biir këram dem nañ sax ba léegi ilimaan yi ku dee ñu suul la ca jàkka ja nga daan jiite néew na tey looy dugg ci Dakar wala ci dëkk bi wala ci biir réew mi lu dul kilifa diine ga wala ilimaan ba ma nga ñu ngi ko suul ca biir jàkka ja loolu baaxul nañ ci moytandiku nañ ko moytandiku mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ci hadisu ibnu abbas mu ne laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zawaarati alqubur walmuttaxisina alayha almasajid wassuruj rawahu ahlu sunan yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla sori yërmande jigéen ñi dëkk ci dem ci bàmmeel yi guddeeg bëccëg zawaaraatil qubuur jigéen ñi dem ci bàmmeel yi guddeeg bëccëg yal na leen yàlla sori yërmande wal muttaxisina alayha al masajid ak ñi jàpp bàmmeel yi def ko ay jàkk wa suraj ak def fa ay làmp gis ngeen nekk jigéen dañ kaa tere ziyaare ji bàmmeel yonent bi moo ko tere dañoo tere ku def ci ay bàmmeel jàkk dañoo tere ku taal làmp ci biir armeel léegi nag waxuma la ñu taal fa làmp waaye dañ fay def kare yoo xam ne kare yi dañuy tàkk guddi pour wane ne ñi am nañ xaalis ndeysaan wala ñu def ci armeel yi ay fleurs yoo xam ne wala ñu def fa peinture boo xam ne wala kara yoo xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñiy dund ñoo ko gën a aajowoo soo gisee ku dee ñu ne nañ ko sàng perkaal mais am na leneen lu gën a seer perkaal lu weex wala waaye xam nga lu tax loolu kuy dund moo ci yay moo tax ñu ne nañ ko defal perkaal gis ngeen fii nu toog nii kenn solu fi perkaal wala ndax dafa ñàkk solo moo tax ñu koy solal ku dee ndax leneen lu cher li ñiy dund ñoo ci yey mais xam ngeen ne ki dee ci yéreem yi mu doon sol sax am na yu ci yu ci kii waaye kenn du ko ko solal lu tax ndax ñiy dund ñoo yey ci loolu moom dee na soxlaatul loolu ndax bu nit deewee yi gën a ñàkk fayda ci àdduna lañ koy defal ñu koy defal ah perkaal ak lan malikaan ak lan sangu ko ban parfum coton bi lu muy jaar benn borom alal dafa dee Sénégal milliardaire la woon mu dee ñu jox doomam 5000 mu dem marché jëndi la ñuy sàng papa yi mu indiwaat wecci toog di joot toog di jooy ñu ne ko lan la mu ne sam papa ni mu bëree almeel 5000 ngeen ma jox ma delloo si waat wecci 5000 lañ ko jox mu delloo si waat wecci alors ku dee ku ne li ñu lay préparé yëpp 5000 bi da ngay indiwaat wecci 5000 da ngay indiwaat wecci kon kon lu ko fi jar te ñoo jaamu suñu borom waa ji lan lay yóbbu perkaal ñetti sër huitaine paquet bi lu muy jar 300 te day des day des parfum xaw ma kiki ngeen koy xaw ma Haruna xaw ma Libin xaw ma 44 lu muy jar eggul 1000 francs benn 300 lay jar xaw ma 250 nga jël ci ñaar ndeysaan saabu saabu ordinaire kenn du wax saabu saabu saabu parfum de nga saabu ordinaire bii nga xam ne ci ñun ñi kenn du ko sangoo am na sax ci ñun ñoo xam duñ ko raxasoo ndeysaan njàmpe njàmpe ñax ñun ñi léegi kenn dootu sangoo njàmpe ñax gis ngeen loolu la ñuy loolu la ñuy aajowoo ci ku dee loolu la ñuy aajowoo ki lay sang sax day sol ay gant day takk masque ci bakkan yi bu ko amee loxo yi sol gant tànk yi sol gant gis nga parce que waru laa laal direct lu dul mu ñàkk pexe kon lu ko fi jar dam leen jaamu yàlla mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla sori yërmande jigéen ñi dem ci bàmmeel yi da ngay dem ci armeel yi jour vendredi nga fekk jigéen ñi di buuxante seeni xeesal yeeg ñees yeeg derefaas yeeg bopp neen yeeg xappat yeeg seen ween yi ci biteeg seen xóotal yeeg zipp yi ñu xarak seen dangal yeeg ci biir armeel yi te yonent bi dafa rëbb laana la wax laana rasulallah rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñaanal alkande jigéen ñi dem ci bàmmeel yi gis ngeen ñu ne su fekkente ne jigéen dafa bëgg dem ci bàmmeel benn bu mu bari ñaar dana am charte ndax boroom xam-xam yi dañu wuute ci jigéen mën na dem walla mënul dem ñenn ñi ne dem gu bari lañu wax ndax siira bi dafa mel ne ëppal la yenent bi wax zawaaraat alqubuur waaye dafa am yeneen riwaay yu ñëw même bu fekkee ñu ngi leen di jam yuy dooleel tere jigéen dem ay armeel ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn bis wax na jigéen ñi demoon ci ay armeel mu ne leen dellu si ngeen di ñu bëri bàkkaar dellu si ngeen di ñàkk tiyaaba fi muy wax ak ñoom rek mu gis Fatima mu ne giñ naa ci yàlla mu ne yéen jigéen ñi da ngeen di fitnaal ku dund di lor ku dee fa inna kunna yéen jigéen ñi tuftinnal xay yi da ngeen di fitnaal kuy dund wa tuzinal mayit da ngeen di lor ku dee li tax ñu tere jigéen dem ci ay bàmmeel gis nga yonent bi bi mu gisee gisee Fatima muy wax ak nit ñi mu gis Fatima ne ko amma innaki yow mii nag moom law balaga maahum alkuda lam tudxilil janna giñ naa ci yàlla boo eggoon ci buntu armeel yi yow Fatima doo dugg aljanna waaw doomam boo yeggoon ci buntu armeel yi doo dugg aljanna yow Fatima waaw boo yeggoon te gis ngeen lim leen wax irjina yéen a ngi nii di dellu si maazuraat di ñu bëri bàkkaar xayru maajuraat kenn fayu leen amu leen tiyaaba ndax yéen da ngeen di fitnaal kuy dund da ngeen di lor ku dee mu gis Fatima ne ko amma innaka law balaga law balagta maahum law balagti maahum alkuda lam tudxilul janna liñ naa ci màggaay yàlla bu eggoon ci armeel yow doo dugg àjjana yow kon nag nañ leen góorgóorlu sàmm sunu diine sàmm sunu njaboot xam ne yonent bi la yàlla yónni woon ñun yàlla yónni wunu yàlla yonent bi la yónni woon te yonent bi li mu wax mooy dëgg li mu def mooy dëgg su keneen rëyee sa bët wala leneen rëy sa bët wala nga déggal ñeneen bàyyi yonent bi yëgal ni amoo diini soo déggalee keneen wala nga wóolu waxu keneen wala nga gis keneen lu mu wax ba nga bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëgal ni alku nga ndax yonent bi la yàlla ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent bi la yàlla wax ne lu mu indi jël leen lu mu leen tere bàyyi leen wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu kon yonent bi moo tere jigéen mu dem ci ay armeel yonent bee ko tere sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu xam ne loolu yonent bi wax mooy dëgg jigéen ñi dañuy lor kuy dund di fitnaal ku dee waaw dañuy fitnaal kuy dund da ngay nekk ak ñoom ñu fitnaal la nga dee ñu indil la problème ñu lor la ci yuuxu yeeg pes seen bopp ak way yi ñuy way ak ah taasu yi ñuy taasoog caaxaan yi ñuy nekk ci dëj ba loolu mooy lor nañu loolu yi ngeen koy gis su ngeen demee tey fekke ku dee ngeen dem ci dëj ba da ngeen di fekk jigéen ñi di caaxaan dee bi sax du nekk seen xel yeneen lañ fay nekkee kon kay ñi ngi lor ki dee ki kon yonent bi moo wax dëgg kon mbokk jullit yi doomu ndey bi lii mooy dar sa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala bu def ñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu